activité bi objectif bi mooy promouvoir l'entrepreneuriat donc au niveau de notre plateforme dañuy amal euh, ay euh, programme chaque année dañuy célébrer semaine mondiale de l'entrepreneuriat pour promouvoir vraiment l'employabilité de nos membres loolu moo tax euh, ñu organiser journée bi tey nekk sunu deuxième édition vraiment ñu amoon ay programme de formation professionnelle ci éducation financière leadership développement personnel marketing ak d'autres différentes corps de métier bon li fi dajee ci ay membres c'est à peine euh, quatre cent et quelques membres yu nga xamante ni ñoom ñoo regroupé wu tey ci daje bi mais plateforme bi euh, dañ ko structuré ci département de Pikine dans chaque commune mais aussi am nañu ay représentants au-delà même du département bi vu y a l'absence de volonté politique loolu moo tax ñu ñu jël suñu responsabilité taxaw défendre suñu bopp défendre suñuy membre sensibiliser leen ci euh, ci entrepreneuriat ba gëmal leen ni war nañu mën a toog tekk ci réew mi liggéey ci réew mi